Ben, nous avons lutté pendant pratiquement près de six mois, c'est vrai. Le combat a été long, le combat a été difficile, mais quand même, nous sommes toujours sur la bonne voie, dans la mesure où ce point de presse vient de regrouper, de rassembler les guides religieux du département d'Ambaké. Nous avons eu le représentant du Khalif général des Baïfal, nous avons eu le représentant de, du Khalif de Mamor Diara. Nous avons eu pratiquement tous les représentants des guides religieux et ils se sont prononcés et ils ont fait le même constat que nous. L'eau qui est servie par, je ne dirais plus la SDE, mais la CNO est une eau de très, très, très, très mauvaise qualité. Nous l'avons démontré parce que nous avons des preuves à l'appui. Nous avons euh, fait des prélèvements. Ça, on ne cessera de le dire. des prélèvements qui ont donné quand même des résultats que tout le monde a commenté ici. Nous avons engagé des médecins qui sont venus sur place constater, ausculter des patients et détecter des maladies telles que euh, euh l'hypertension artérielle, la fièvre typhoïde et j'en passe. Et Mbaké vit un calvaire et tout le monde sait que Mbaké est le bastion du mouridisme. Cheikh Amadou Bamba est venu au monde ici. Seigneur Mamor Diara est ici. Mbaké mérite plus que ça. Nous avons crié, nous avons hurlé, nous sommes pratiquement au bout du souffle. Et maintenant, il va falloir qu'on continue à négocier. Et nous demandons à l'État du Sénégal de faire des efforts pour quand même aider Mbaké à sortir de ce calvaire. Nous avons besoin d'arbres fruitiers, nous avons besoin d'une santé les enfants, pour les vieillards, pour toute la population. Cette eau, nous la payons cher. Et le paradoxe, nous recevons euh, le même prix que Dakar. Au moment où Dakar a de l'eau douce, une eau de qualité venant du lac de Guillet, pourtant Baké, nous avons la malchance, c'est vrai, d'avoir une nappe qui nous donne de l'eau saumâtre, mais quand même les factures sont extrêmement élevées, les factures sont extrêmement chères. Donc il va falloir qu'on change rapidement l'eau, il va falloir qu'on fasse comme Tchadjaï, qu'on fasse comme Fatik. Les possibilités sont là. Et je pense que si l'État en fait une priorité, il pourra dans de brefs délais résoudre cette euh, crise. Vous savez, quand vous êtes en face d'une difficulté, vous êtes obligé de vous répéter parce que nous avons toujours la même doléance. C'est la même doléance. Donc nous allons répéter toujours les mêmes choses. Parce que je sais bien que le préfet a fait ce qu'il devait faire. Nous avons rencontré les dirigeants de la SDE, l'ex-SDE, la défunte SDE. Nous avons rencontré le nouveau préfet qui est affecté ici. Bon, on nous a indiqué des voies. Nous sommes en train de les suivre et ce point de presse entre dans, dans, dans ce cadre. Et nous espérons peut-être aller rencontrer les autorités supérieures. Et nous sommes prêts à les rencontrer, si elles nous ouvrent la porte, bien sûr. Nous sommes des républicains, nous voulons nous inscrire dans la légalité, parce que nous sommes des citoyens. ce prix, ce pays, nous n'allons jamais, jamais, jamais le brûler. Nous sommes des citoyens imbus de valeurs positives. Nous réclamons nos droits et je pense que ça, c'est une bonne chose. Ces autorités religieuses-là ont un poids réel, une, influ une influence réelle sur la marche du pays. La preuve, tout, toutes les autorités, euh, je dirais, locales, toutes les autorités politiques, voilà ce que je cherchais. Quand, à la veille des joutes électorales, viennent recueillir la, les prières ou bien même euh, le secours des autorités religieuses. Alors ah, nous, nous sommes de Maquet. Nous vivons avec ces autorités. C'est tout à fait normal qu'on les convoque pour qu'elles viennent nous appuyer dans ce, combat qui est quand même un combat noble. C'est rassurant très rassurant et c'est prometteur. C'est plus que rassurant, c'est prometteur. 8 mois, nous xeex affaire ndox mi mais xam nga Mbàkke ci boppam am problème lii lii mooy wane ni Mbàkke am na problème te problème mu Mbàkke nag waa Mbàkke ko mën a fajal seen bopp mënuma accepter dëkk boo xam ne nii am nañ soixante dix mille habitants ñuy xeex lu toll ne robinet baa ngi tijji ci kër ñëpp askan wépp war a génn mu jaral ñu bàyyi dem marché jaral ñu bañ tëj suñuy kër génn ci mbedd mi loog ñii nga xam ne rey ñu lañu bëgg parce que ñoom amuñu benn lu ñu leen ñor ci dëkk bi ñun nag comme que kenn mayuñu ñun laajuñu tëli laajuñu dispensaire laajuñu hôpital laajuñu dara lu dul ab commerçant fi ñëw di ñu jaay am ndox ndox mi ñu jaay xam nañ ñu poson la te ñi ñu koy jaay nangu nañ ñu ndox mi poson la ñu bëgg waa Mbàkke jóg bañ lu toll noonu kooku foog naa ne amatul benn doomu Mbàkke wala benn gone gu dëkk Mbàkke goo xam ne warati ngaa tëdd te xeexaw ñoom ndax mbir mi kat dañoo sës ci miir bi te askan nag boo leen di topp ñuy reculer nga leen di topp ñuy reculer ba sës ci miir bi bu ñu wëlbati ko dañ la mat ba dañ dal ci sa ak tous les moyens nécessaires nag man autorités yi dama leen di wax c'est des complices parce que mënuma accepter ngay am bénéfice vingt quatre ans une société étrangère nekk fi ànd ak état du Sénégal pendant vingt quatre ans ñuy def seen i bénéfice générer ay milliards jël al milliards yooyu dem France defaree ko seen escon seenum ndox jox leen ko gratuitement suñu autorité accepter ñoom ñu ñuy poisonné ñu taxaw ne loolu doy na ñu ni du fi amee loolu warta mën a durer ñaari weer waruñ ñun kenn ñaanuñu kenn ndax Mbàkke ñun xam nañu dañuy xeex askanu Mbàkke nag demandé tuñ dara lu am ndox moo xam ne dañ leen koy jaay ñun ne nañ ko defar ñu taxaw bañ fan lañ ko teg loolu nag ñun ñoo ko mën a fajee suñ bopp parce que autorités yi seen boppa leen ñor salaire yi ñuy am seen oto yi ñuy am tekk ci seen olala ñu dëkk bi bu campagne électorale jotee nag bu campagne jotee da nga leen gis ñu di jël suñ yaay yeeg suñu rakk yeeg suñu mag yu jigéen ñi génn leen ci naaj bi njuuyeeg leen ci ay njege njaay ñuy taxaw di yuuxoo ndax yi 2000 francs ki 5000 ñun ñu am naqarul toll ni ndox mu bon moo xam ne mi ngi rey suñuy doom di rey suñu askan ma ndox mi concerné moi su ma neexoon duma ci dund ndax bu ma neexoon tëdd ca kaw nekk ci sama jàmm mais damay ñëw gis ñu jaadu ndax am na loo xam ne jaamu yàlla la képp kuy doomum Sénégal laa wax de boo gisee ne ay tubaab a ngi nasaraan ñi ngi ñëw di ñu def lu bon war nga caa mën a yëkkati saw yat loo mën a yëkkati nga yëkkati ko xeexle leen ko te xam ne injustice kenn waru cee xaar kenn kilifa diine yi ñun dañoo jaar fi ñu war a jaar depuis le début ñoo ngi dem ci kilifa diine yi kilifa diine gu taxaw na yëgu ko loolu ñun def nañ suñ délégué man def naa un mois yoo xam ni dañoo wër képp kuy pénc ci Mbàkke ak dem nañ ba ci sëñ Muntaxa mbir nag ay taaliba bu ñu ne lay yaakaar nañ la àdduna ak alaaxira te àdduna bii bu ñu ci amee problème doo leen mën a taxaw ci seen problème kon mbir mi war nañ ko mën a seetaat kilifa yee ñu seetaan borom dëkk yee war a wax fa ndax ñoom seen wax ak kàddu fam àgg suñu kàddu àgg fa waaye ñun dañu am jeunesse jeunesse bu dynamique la ñu am mais Bawol kenn mosu leen a yàpp pourquoi kon ñu dem ba nguuru Macky Sall gii ñu am fi ay autorités yoo xam ne nii ñoom ci seen bopp ñemewu ñoo tax ak président na ko lii ak lii ak lii dénoncé ndax ñun li ñuy demandé ñoom dafay dafa simple 4000 personnes ba voire 6000 personnes lañ génn def marche loolu waroon naa tax suñu politiciens yi am fit wu toll que ñun président suñu askan dafa am leen naqari loo xam ni il faut ñu jóg wax ci te loolu dañ leen ubbi leen bunt bi mais dañoo ubbi bunt bi ba pare ñoom ñëpp ñu toog di ñu seetaan li ci des nag mooy ñu daw ci kilifa fi nekkal état moom ku ci nekk dem nañ ci ñoom léegi nag daw nañ rattaché wu ji ci kilifa diine yi bëgg ñu dimbali ñu parce que kat mbir mi comme que jeunesse su Mbàkke bi yëpp dañoo toog di croiser le bras bu dee nawetaan ñoom ñëpp ñu génn bu dee stade dëkk bi yëpp génn mais ndox moo xam ne mi ngi rey hôpital bi boo demee ña fa tëdd ñëpp ndox may leen fa tëral suñ mag ñi nekk ci kër yëpp dee nañ ndax ndox mi ndox mi couleur bi ci nekk yóbbu na mag ñëpp yomal xiyam ñenn ñi mu yàq seen i bët ñenn ñi mu yàq jox leen ay feebar yoo xam ni te li gën a dangereux ci ndoxu Mbàkke ndox mi bu la doon rey bàyyi la ci sa jàmm ñu mën a wax mais ndox mi balam laa rey dalay toroxal ba pare dalay mirage nga jaay li nga yoroon lépp parce que maladie à longue durée la lay jox maladie yoo xam ne daal du la rey ci cinq ans du la rey ci dix ans dana la jox ngay faju loo yor di nga ko fajoo bala nga yor jeex jaay la nga yoroon lépp yàq say mbokk mu door lay rey te tôt ou tard euh, il va te donc je pense que actuellement il est temps jeunesse su Mbàkke bi éveillé wu te xam ni mënu leen am benn distraction wala ngeen am lenn lu ngeen fii xeex lu gën a priorité ndoxu Mbàkke léegi nag xeex bi mooy phase supérieure lañ toll parce que ñun sept mois huit mois ñi nga taxaw di dégg di xaar defuñu ci dara li fi sës nag mooy lànk bañ a fay ndox mbir mi mooy man du ma nangu ñu may jaay bon ndax tey ji boutique bee bu doon jaay lu périmé service d'hygiène dana ko fekk jàpp ko wala police ko fay fekk jàpp ko SDE di jaay lu bon kenn du ko wax dara SNO di jaay lu bon kenn du ko wax dara c'est injuste li fi nekk nag ñun ñooy mën a fañ mbir mi ni koy fajee nag mooy lànk bañ a fay facture yi man de màggal ba léegi fayuma tant que jiitaluñ police sama biir kër wala ñu ñëw néewal ma doole abus de pouvoir ci sama kaw xalaatutuma fay ndox mi tant maa ngi ciy am solution